ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh ali imran tv delsiwaat nañ ak suñuy mbokk ñu ñuy topp fu ngeen munti nekk ci biir àddina si ñu ngi leen di nuyu nuyug islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu émission at tadkir dellusiwaat nañu ngir ñu war a mën a wittalanteeg mbokk yi fas yéene fàttalanteeg mbokk yi lenn ci suñu mbiru diine tey ñu andil leen beneen bunt bu bees bi nga xamante ne dañ koy jokk ca bunt yu weesu woon te muy xëytu ñaan yi nga xamante ne dafa wadd ci alquranul karim yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala tàmm ci ngir jullit bi di ko ko ñaan ay yonenti ñaan ko ci mu nangul leen seeni ñaan ay nit ñu baax ñaan ko ci mu nangul leen seeni ñaan waaye keroog bu mu yónnee suñu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam mu jox ko téere bu mag bi di alquranul karim mu daldi ko fa jox xeetu ñaan yi ndax moom borom bi subhaanahu wa bokk na ci màndargaam ak ci kawtifam ak ci coobareem mu ne uduuni astajib lakum na ma ñaan na ngeen sàkku ci man ñaan ma wuyu leen ca la ngeen may ñaan laaj leen ma ma jox leen ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma wuyu leen bokk na ci tey ñaan bañ leen andil ngir ñu war see waxtaane ñaan bi nga xamante ne mu ngi ci alquran di اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ñaan bi lu muy mooy buur yàlla buur bu kawe bi yow mi nga xamante ne yaay borom mbindee fi yàlla bokk na ci sartu yi ñaan boo koy ñaan nga tagg ko bàkk ko delloo ko la mu yeyoo jox ko la mu moom tagg ko ci melokaanam yu kaw yi waaye bàkk ko ci moomeelaam yi nga xamante ne moom rekk kott dong moo ko moom xëjowu ci kenn moo tax nga naan allahumma buur yàlla xeetu màggaay la ngir woo sa borom yow jaam bi allahumma buur yàlla buur bu kawe bi borom nguur bu kawe bi borom man-man yu kawe yi borom moomeel yi mooy rabbana rabbana yow mi di suñu boroom bind ñu andi ñu dundal ñu wërsëgal ñu bàyyee ñu lu ñu nekkee nga war ñu fi jëlee kon yow rekk yaay suñu boroom ñaari tagg yi ñaari dayo yi kenn amu ko du malaaka du jinne du doomu aadama yàlla dong rekk lañ ko war a wax mooy allahumma buur yàlla buur bu kawe bi rabbana yow mi di suñu borom yow mi nga xamante ni yaa ñu moom ñu ngi lay ñaan liñ la bëgg ñaan nag du malaaka moo ñu ko mënal la déedéet malaaka mënuñu ko malaaka mën na ko jinne mën na ko doomu aadama mën ko kon lañ lay bëgg ñaan nii ah yàlla yow dong yow rek kot yaa ñu ko mënal ba tax na nga ne aatina ñu ngi lay ñaan nga may fi duniya fii ci àddina xasanatan mboolem xeetu yiw yu baax wa fil axirati ba léegi nga defal ñu ci bés penc di alaxira xasanatan mboolem xeetu yiw yu baax waqinaa ñu ngi lay ñaan nga fegal ñu muccal ñu azaba naar mbugalu safara mbokk yow miy topp Ali Imran TV ngay wéttalantek ñun ci émission bi nga xamante ne mooy at-tazkir li ñuy waxtaanee nii ñaan bi lu mu làmboo du kenn moo ko munal moroomam amul kenn ku ko mënal moroomam ko dul yàlla moo tax yàlla rekk nga kay mën a ñaan ndax moo ko man ci nguuram la nekk ci moomeelam la nekk moo tax nga ne ko allahumma rabbana buur yàlla di suñu boroom aatina ñu ngi lay ñaan nga may ñu fi duniya fii ci àddina bi ñuy dund xasanatan mboolem xeetu yiw mboolem xeetu yu baax mboolem xeetu jàmm yan nañu ko may fii ci àddina ndax lépp ci loxoom la nekk moom yàlla subhaanahu wa moo yére yiw moo yore jàmm moo yore xeetu baax baax yooyu nekkul ci kenn kenn moomu ko ku yàlla moo ko moom te nguuram la nekk subhanahu wa moo tax ci abdallah yow jullit bi da war a wax di ñaan di wax ne allahumma buuru yàlla rabbana yow mi suñu boroom ñu nekk ci sa moomeef ñu nekk ci sa moomeel ñu di sa moomeef te yaa ñu moom ñu ngi lay ñaan aatina yàlla ngi ñu may fi duniya ci territoire u àddina bi ñuy dund nii territoire àddina bi ñuy dund nii yàlla nga ñu may xasanatan mboolem xëytu yiw yu baax wa fil axirati bés penc di alaxira tamit ñoo la koy ñaan xasanatan nga defal ñu xëytu yiw yu baax allahu akbar ndax ci sa moomeel la nekk yàlla wa waaye nag ñu fegal musal ñu azaban naar mbugalu safara ndax yàlla moo ñu moom moo moom mbugal te moo moom safara bu la yàlla mayee fii ci àddina yiw yiw bi mooy mu def la nga doon bi mooy def la nga doon ci xeetu sayyiduna muhammad yiw bi mooy mu def la ci ñi nga xamante ne dañ koy jaamu di ko sellal di xeeñtu njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa di teg sa tànk fa la yàlla rëddal ne la nanga ko fa teg waaye yonent bi num la jàngale ne noonu nga ko fay tege nga defee ko nii loolu ci xeetu yiw yi yàlla di may doomu aadama la fii ci kaw suuf waaye ba léegi wa fil axirati xasanatan ki yàlla dekkil ak yonent yi ak nit ñu baax ñi ak ñi nga xamante ne dañoo daanu ci toolu xare ulaika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina walshuhada walsalihin wa xasuna ulaika rafiqa ñooñu la yàlla tagg ñooñu yàlla tagg ci alquran nee na ñooñu ñooy ñi nga xamante ne yàlla xéewalal na leen ñu war a dekki ñu war a ànd ñu war a nekk ak yonent ak way dëggu yi ak nit ñu sell baax ñi ak ñi nga xamante ne dañoo rafetal seeni ginnaaw ñooñu képp ku yàlla wërsëgal nga dekki ak ñooñee nga dekki ci kuréel googe nga dekki ci keppaar boobe haa am nga yaakaar am nga yaakaar waaw waaye day fekk fii ci àddina ngay xeeñtu seeni jéego ngay xeeñtu seeni jéego di géem roy seeni tànk di géem doxal comme nañ ko daan defee donte duñ ko mën donte dinañ ci lottu waaye ñu def ci suñu kemtal ay kàttan mooy wa fil axirati xasanatan yàlla nga ma may yiw bés pénc mooy yàlla dekkil la ak nit ñu baax ñii waqinaa waaye yàlla nga ñu fegal yàlla nga ñu musal yàlla nga ñu soreel lan adaba naar mbugalu safara ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu na ko doon baril di ko ñaan ba tax na ñaan bi xadis bi nekk ci suuf dinañu gis ne jëlee nañ xadis bi ci sahaabi bu mag bu ñu naan عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه allahumma rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati wa qina adaba annaar rawahu buxaari wa muslim bokk na ci xadis bi nga xamante ne moom la anas génne ne anas bun malik benn sahaabi la daa nekkoon ci këru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fa daan doolem te moo doon kii liggéeyal yonent bi ci biir këram nee na kaana aktharu duaai nabi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na Cheikh Abdallah la yonent bi di gën a di ñaan Anas nee na bokkoon na la yonent bi gën a di ñaan mooy allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil axirati xasanatan wa kon yenentu bi sallallahu alayhi wa anas nee na bokkoon na ci li mu daan gën a di ñaan ñaan wi di wax yow buur bi yow yàlla buur bu kawe bi di suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga may ñu fi ci suñu dund àddina yiw waaye ñu ngi lay ñaan tamit bés pénc nga may ñu yiw te nga musal ñu sorel ñu la nga xamante ni mooy mbugalu safara kon yow mi nga xamante ne yaa ngi topp Ali Imran TV di ànd ak ñun ci émission bi nga xamante ne mooy at-tadhkir nañu bokk géema wattu ñaan bi ñu di ko ñaan saa su ne ñu di yëkkati suñu baat di dëkk suñu loxo yàlla di ko ñaan mu may ñu ci àddina mboolem xeetu yiw ya nekk fa moom ndax doomu aadama boo amee yiw ci sa dund mooy sa dund dina stable sa dund dina dal sa dund dina nekk dundin bu mucc ayib waaye contrôle yiw bu la ko yàlla sëmbërtale day daal di nekk loo xamante ne jafe-jafe lay doon ci sa dund kon moo tax nga di ko ñaan di ko ne allahumma rabbana buur yàlla yow bi di suñu boroom ñu ngi lay ñaan lu lay ñaan ni amul benn bindaafoon ku ko yore amul benn bindaafoon ku ñu ko mën a defal kon yow mi ko yor te nga mën ñu koo defal ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu ko wërsëgal mooy aatina yàlla nga ñu may fi duniya ci suñu dund àddina bi xasanatan mboolem xeetu yiw wa fil axirati ak nga may ñu tamit ca alaxira di bés pénc xasanatan mboolem xeetu yiw ya nekk fa yow yàlla waqinaa ak nga musul ñu fegal ñu sorel ñu lan azaban naar mbugalu safara si nga xamante ne dinañ ko ragal te dañ ka ragal te yow rekk yaa ñu mun a musal ci mbugalu safara yow rekk yaa ñu mun a fanqal ci mbugalu safara kon yow mi ànd ak ñun ci Ali Imran TV ñu nit nañu bokk dëkk suñu loxo yàlla di ko ne allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ndegem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla wax ne jéggal naa la say bàkkaar ya jiitu ak yu mujj kooku moo nekk di góor-góorlu di bëril ñaan bi surtout man ak yow ak keneen ki nga xamante ne yàlla promise wu ñu dara ñun lan lañ ci war a nekkee kon bari waayu ñaan bi ñun ñoo ko gën a yeyoo ko keneen ko dut ñun kon mbokk yi tey lii lenn la lañ leen andiloon ngir ñu fas yéene koo wéttalante ak yéen ci Ali Imran TV ci émission bi nga xamante ne mooy at tadkir ñuy nuyu suñu pàpp ji nga xamante ne mooy Seyxana al Fadil wa Seyxana al Habib ustaasuna al Jalil ustaas Alioune Sall ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ko yàlla yàggal ci kanamu njaboot bi yal yàlla soqali daara yi yal na def. képp kuy taataan ci xam-xamam yàlla may la dinn bu yaatu nga mën a sol li nga xamante ne mooy xam-xam yi baaxee askan bi yan na ko yàlla yàggal suñu kanam ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi di sant di gërëm suñu ñaari technicien ak mboolem ñi fi daan seeni doole ak ñi fiy waxtaanee asatija yi ci Ali Imran TV ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa yan nañu yàlla boolee defal yiw yal nañu yàlla boolee defal xasanaatu fil misaan may nuyu di ziar mbokk yu nekk ci diaspora bi suñu mbokk yu nekk Italie Ibrahima Ndiaye Kalando ñu ngi lay ziar soxna Faat Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar yaak sa borom kër maa ngi nuyu ba léegi sama élève bopp ki nga xamante ne sama sëriñ la mu di sama élève xam nga bañ la ñuy jël di sëriñ Mourtada Mbakke Mbakke bala ay sa maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu sama jigéenu bopp depuis itali muy soxna Anta Diagne madame Sall di wax nga nuyul ma sama sang bi di Mouhamed bébé Mouhamed di nuyu mboolem mbokk yu nekk ci diaspora alaaji Doro Sylla Fatou Mala ma ngi lay nuyu yàgg sa soxna ak xale yi ñu ngi leen di wax ne baarakallahu lana wa lakum fi l qur'ani azim ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته